Assalamualaikum. mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñu paax te di leen baalaax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñoo fi ñëwaat tey indi fi aw waxtaan waxtaan wi nag nekk waxtaan woo xam ne day wax ci loo xam ne dafa xew ci jamono mu nekk benn débat boo xam ne mu ngi dox ci diggante ay kuréel yoo xam ne dañuy tuddoo Islam. mu jëm ci benn sujet boo xam ne yàlla dogal na jamono yii laaj yi nga xam ne dikkal nañu ci bëri na lool ci di ñu laaj ana lan la yàlla jàngaleel boppam ci loolu nga xam ne moom la ñuy wax bidaa ndax gis nañ ne euh, ci jamono bi weesu ci li nga xam ne moom lañuy wax gàmmu te ñenn ñi di ko def euh, mu am ay coow walla ay werante yoo xam ne jib na ci ñii di wax ne du diine ñii di wax ne diine la ñi naan bidaa la ñii di wax naan loolu bidaa bu rafet la nit ñi nag di laaj waaw bidaa moom dëgg-dëgg mooy lan waaye lu jiitu loolu ñu baalu àq ñépp rek ci maanaam géej gi ci vidéo yi waaye li ko waral tamit comme niñ ko waxee ci émission bi passé di lu ci yàlla ji wax mooy yitté yi nga xamné suñu borom dogal na ñu nekk ci eh, te it comme niñ koy waxit euh di sante yalla bu baax wala bok di santaat yalla bu baax te diko ko ñi nga xamné dañuy top waxtaan yi yépp ci liggéey bu am solo bi nga xamné suñu borom baaxé nañu ko ñu diko def te yalla dogal wax dëgg yalla am ci nit ñoo xamné suñu borom ci mbaaxam ak yermandem dem nañ ba yeewul seen bopp ci diine yàlla seen borom di bàyyi xel alquran di ko seetantalal seen bopp te loolu nag di sant yàlla goo xam ne amul yemuwaay euh, li nga xam ne moom la ñuy wax nag euh, nga xam ne moo waral waxtaanu tey wi muy li ñuy wax biddaa nga xam ne yàlla dogal na jamono yi ay nit ñu wuute yu nekk ci barab yu wuute ñu ngi ñuy contacter di ñu laaj dëgg-dëgg loolu lan la ci yàlla jàngale ndax gis nañ ne débat bi nga xam ne daf ci aju dafa mel ni jamono bu ne day dellusiwaat siwaat yu ñëwaatee nit ñi nekkaat ci di werante ñu bëgg a xam ndax loolu yàlla am na lu mu ci jàngale wala déet li ma ci wax mooy li may wax nit ñëpp mooy di leen wax na yàlla li mu xamleel bopp ci ab téeréem mooy moom bàyyiwul dara ci téere bi li wax na ma farratna fil kitaabi min shay'in nit ñi nag yenn saa yi dañuy wax ne bàyyiwul dara ci téere bi ci naan may leen téere bi ak njub la téere bi ab njub la kon yàlla su ne bàyyiwu ci dara mooy lépp la aju ci njub googa suñ borom bàyyiwu ca dara te lépp loo xam ne suñ borom wax na ko ci ca waxin wu gën a leer la koy waxee faram fàcce ko ba nit ñi mën koo xamal seen bopp ndax téere bi yàlla ko tuddee alkitaabul mubiin muy téere bu leer bi yàlla ko tuddee ba tey alkitaab mufassala ci afa gayra allahi abtagi xakaman wa huwa alladi anzala ilaykum alkitaaba mufassala ci suratul an'am aya 114 يالله يتما وحي ينتبه في القرآن وحكو كتير بناكو ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء واتينا نشيو بي موي اب ليرال غير بيب مير كون واخ دغ يالا يالا ليغا خامني واخال نكو بوبم مو دون لو لير مو خامني تيربي بايوو سي دارا تيربو لير لا تيربو ما فرام فاتيه لا kon su amee loo xam ne dafa doon ab coow jëm ci wàllu diine su dee lu wér suñ demee ci téereb yàlla danañ fa fekk lu ci yàlla jàngale su fekkee ne du lu wér suñ demee ci téereb yàlla duñ ko fa fekk mbir mii nag ñuy wax bidaa am na ñoo xam ne sax liñ may laaj mooy ndax jëm mi baat booba dafa ñëw ci alxuraan waaye leen jëmmi baat bi ci boppam ñëw na ci alquran waaye nag ci anam yu wuute xam nga baatu bidaa li muy firi mooy ak fent loo xam ne dañ ko fent mooy loo xam ne dañ ko inventé soo demee ci alquran yàlla mi nga xam ne moo bind nit ñi te moom leen moom bokk na ci ay meloom li nga xam ne moom la ñuy wax wala bokk na ci ay turam li nga xam ne moom lañuy ñuy wax albadian وخنا بديه السماوات والارض واذا خدا امرا فانما يقول له كن فيكون دي خامنا ن موم موي كيغا خامنا مو فنت اسمان سوف تا موم سو نامي دارا دا نان كون ريك لولو نيك باتاي تاميت سو نين ديمي سي يوننت بي نين ديم سي سوره اخاف مي سوره 46 نين ديم سي جوروم نينتلو اي بي مي سوره 46 verset 9 di ngeen fekk suñ borom wax ne wax yonent bi ne ko xul maa kuntu bidaan min ar-rusuli wa ma adri maa yufaalu bi wala bikumu in attabihu illa maa yuuxa ilayya wa ma ana illa nazirun mubin wax yonent bi waxal ne man duma lu bees wala duma kuñu ñu sos ci ndaw yi nga xam ne yonent du ku bees ci ndaw yi nekkul koo xam ne dafa am benn particularité boo xam ne ndaw yu ko jiitu amuñ ko woon yàlla na ko waxal ne xul maa kuntu bidaan min ar moom mu ne du ci ndaw yi mu teg ci ne wa ma adri maa yufaalu bii wala bikumu ci biir la ko boromam di waxloo mu ne ko waxal ba tey ne xawma lu ñuy def ci man ak li ñuy def ci yéen ndax ay bi damay faral diko wax ndax bëri na lu muy leral lo xamni nit ñang ko gëm rawati na ci yenn ñi am yenn pass pass yi moo xam lu meen xétu tasawuf wala nangam jàpp ne ki ëllëg moy def li ci ñun wala moy def li ci ñun wala moy def li ci ñun yonent bi mom li lako borom am wax khul ma kuntu bid'an min ar rusul mu tek ci ne wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum lan la ci tegaat in atabbihu illa ma yuha ilayya mu waxaat ne moom kat toppul lu dul li ñu wax yu mu jëm ci moom mu tegaat ci ne wama ana illa nazirun mubiin te mu ne moom it nekkul lu dul xuppekat bu leer nga xam ne aaya bi ku ca dem da ngay gis ne ñeenti information suñ borom jox nañu ko loo xam ne lépp ci yonent bi la jëm nga xam ne aaya bii képp mën naa doon ab nattukaay ci gëm-gëm yu baree baree bari yoo xam ne nit ñaa ngi ko gëm di ko wax di ko jëmale ci ñi ñuy tuddee ñoom seeni kilifa comme ni ñuy wax fii ci réew mi seeni sëriñ wala sax ñu koy jëmale ci yonent bi moom ci boppam te yonent bi lii la ko boroomam waxloo moom mu wax ko mais xul ma kuntu bidaan min ar-rusuli mii benn wa adri maa yufaalu bii wala bikumu mii ñaar in attabihu illa ma yuuxa ilayya mii ñett wa ma ana illa naziru mubin mii ñeent te leen lu ci ne ci ñeenti information la waaye suñu dellusee ci li nga xam ne moo soxal tey waxtaan wi limu wax mooy moom du lu bees ci ndaw yi kon baatu albadia bi nga xam ne yàlla ci boppam mooy aji fent ji mooy ki nga xam ne moom mooy kii moom mooy fent mbir te moo fent asamaan ak suuf baat boobu indi na ko moom ci wàllam fii ci yonent bi mu wax yonent bi nag ko xul maa kuntu bid'an min ar waaye su ngeen xoolee ñaar yi yëpp bokkut ak sens bi nga xam ne moom la ko nit ñi di jëfandikoo ni nga xam ne nit ñi moom lañ koy tuddee ci diine ndax nit ñi li ñu wax bid'a dañuy wax na mooy loo xam ne yonent bi ci boppam nekkul loo xam ne lum fi bàyyi la kon lépp loo xam ne dañ koo fent ginnaaw gi rek loolu ab bid'a la nga xam ne nekkul loo xam ne lu mu jàngale la lu ñu fent la nekkul lu mu jàngale nekkul loo xam ne da ko fay bàyyi léegi nag soo soo demee ci alquran ndax yàlla jàngale na li ñu wax baatu bid'a ci sens boobu léegi loolu li ma ciy wax rek nga xam ne wax dëgg yàlla ab seetlu la bu ñu def ci débat yu mel nii saa yu amee nga xam ne nit ñi laaj yi laaj di la yónnee ay lien wala ay video ngay xool benn jàngat bi nga xam ne moo ma ci gën a marqué man mooy damay seetlu ne xeetu werante yi saa yu amee doo dégg kenn kuy ñëw di wut a wax lu yàlla wax ci mbir mi da dégg diw naan diw nee na nàngam wala diw nee na nàngam wala diw nee na nàngam te diine ji ñu nekk di islaam te ñoom ñu ne ci lañ ne ba noppi di ci tudd maam ba noppi di ko tuddoo diine jooju dafa am delluwaay kon ñu bëggee saxal mbir wala ñu bëgg dàq mbir fi gën a yeey ñu dellu fa ngir saxal wala ngir dàq mooy téereb yàlla te li ma seetlul sama bopp man mooy xeetu wax yi saa yu amee pour nga dégg ci ku ci dellu ci téereb yàlla daanaka jafe-jafe bu rëy rëy lay doon yàlla dogal na ko sax yàlla dogal na sax dama ko cee gisut gisuma kenn koo xam ne ñëw na indi benn waxu yàlla ngir saxal wala ngir dàq li nga xam ne ñoom moo ñi nga xam ne dañuy saxal la bëgg a saxal ñii dàq la bëgg a dàq gisuma kenn ci ñoom ko xamne dafa indi ben waxu yàlla di ci wuta saxal la saxal wala mu ci wuta dàq la dàq te diine ji kat so en deme ci alquran ci barab yu bari waye mën nañ ci tuddu ben rek iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aytan annaasa yadkhuluna fi diini lu mu wax allahi fii diinillaahi nekkul fii diini diw nekkul sax fii diini muhammad nekkul fii diini diw wala diine diw wala diine diw comme sëgam diine yàlla la lu ci mën a xew lu ne dañoo war a dellu ca yàlla ndax kenn ku ci nakat li nga moomal sa bopp muy sa alal nit ñi suñ ci bëggee wax wala ñu ciy xuloo wala ñu ciy werante la gën a màndu mooy ñu dellusi ba ca yow yow nga wax li nga cay wax nit ñi mën a xam dëgg-dëgg lu ci am waaye kem ni ma koy waxee te yag nañ ko wax yalla dogal na defon nañ ci vidéo depuis 2018 ku dem ci vidéo yi may li tudd la divergence et la division dans l'islam vidéo yoyu bu njëkk bi mo ngi gennon février 2018 ñaarel bi mo ngi genn mo ngi genn mars 2018 nga xamne ci lu jur wuute gi ak takaliko bi nga xamne vidéo yoyu ci loolu lay wax ndax yii yépp soo xoolee li ko jur mooy dellu ci ay nit walla déglu ay nit ci diine yàlla werante yi li ko jur mooy dellu ci ay nit wala déglu ay nit ci diine yàlla su fekkoon ne saa yu mbir taxawee dañuy dellu ci téereb yàlla xool lu ca yàlla wax konoon coow du mës a am werante du mës a am ci yenn sujet yi rawatina loo xam ne dafa jëm ci diine su fekkoon ne saa yuy taxawe dañuy dellu ci téereb yàlla xool lan la yàlla waxal boppam ci mbir mi konoon werante du mës a am ci mbir yi wala suy werante du amit du sori ndax fu waxu yàlla teewee ñoom su boobaa kenn ku ci ne mën a dellu fa mu nekkoon tey su boobaa dana mën a xam luy dëgg ak lu dul dëgg ndax waxu yàlla moom fu mu ñëwee rek lay dëgg dana leer lay neen dana leer kon macha allah su fekkee ne yàlla ci boppam kem niñ ko waxee léegi ci badihu samawati wal ak ni waxee ci xul ma bidaan min ar-rusuli suñ delloo ci téereb yàlla xool ci bidaa ni nga xam ne noonu lañ koy ni nga xam ne nit ñi moom lañ ciy waxee ñu xool loolu ndax yàlla am na lenn lu mu jàngale loo xam ne moom ci boppam dafa wax ne biddaa la ci li nga xam ne mooy li jiitu suñ ñu ko laajee dañ leen wax ne ah loolu am na te loolu suñ ca demoon danañ xam sens bi te danañ xam ndax lu war la walla lu warul ak danañ xamit ndax amal na njëriñ ña koy def su fekkee yàlla dogal ñu dem ci suratu hadid ni surat 57 ñu dem xoli aya 26 ak aya 27 yàlla wax ne wala khad arsalna nuhan wa ibrahima wa jacalna fi zurriyatihima nubuata walkitaaba fa minhum muhtadin wa kathiru minhum fasixun mu ne summa ala aathaarihim bi rusulina وخفينا به ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة متكنة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون مدون لو خمني كيب كو جيل نياري آية يوي كيب راواتنا نياري لوب آية بي مي آية 27 تي سورة حديد دي سورة 57 لو جيم تي مبير مي دا لا مانا لير داخ يالا دا فا مو يوني تي بو وير nuuxan mi nuux ak ibrahim nee na mu def ci seeni sët maanaam ci seeni njaboot li ñuy wax xibaar gi mooy comme li ñuy wax nubuwa moom la ñuy wax xibaar gi di téere bi mu am na ci ñoom ku gindeeku waaye ñu ëpp ci ñoom ay jalgatikat lañ baat boobu nag wax nañ ko maintes fois gaa yi maanaam dañ koy faral di firee saay-saay waaye dëgg-dëgg baat bi li muy firi mooy jalgati mooy koo xam ne maanaam maanaam pervers la te day pervertir mooy mbir na mu tëddee da koy jalgati di ko defee neneen yàlla mooy waaye lu ëpp ci ñoom maanaam ay jalgatikat lañ nee na nag ci ginnaaw nuux ak Ibrahima mu wax ne moom tofal na ci seeni jeexit nee na tofal nañ summa xaffay naa ala athaarihim bi rusulina nee na tofal nañ ci suñuy ndaw ci seeni jeexit nee na ñu tofal ca ki ñu wax Isa ibnu Maryam jox ko in injiil def ci xolub ñi nga xam ne dañ koo topp ak laabiir ak yërmande mu ne waaye nag ci biir ñooña dafa am ñoo xam ne dañoo créer li ñuy wax ak làbbe dañoo fent li ñuy wax ak làbbe yooyu wax ne wa rahbaniyatan ibtadahuha xana baat bi foofu la ñëwaat ak rahbaniya gi nga xam ne mooy ak làbbe ga nga xam ne ñoom ñoo ko fent waaye wax jaa ngi noonu maa katabnaaha alayhim ñoom ñoo ko fent waaye dogaluñ ko ci ñoom nga gis yàlla ni muy jàngale ni mu leere su nit ki bëggoon a xam dëgg-dëgg ana lan mooy bidaa ak li ko doonul yàlla ci ñaari baat yu toftaloo ci la ko wax wa rahbaniyatan ibtadahuha ma katabnaha alayhim kon nit ki su bëggee xam dëgg-dëgg lan mooy bidaa kon day xam ne kon bidaa mooy loo xam ne yàlla dogalu ko ci ñun mooy yàlla décrété wu ko ci ñun mooy yàlla waralu ko ci ñun lépp lu yàlla waralut ci ñun loolu ak fent la ci wàllu diine lépp lu yàlla waralut ci ñun ak fent la te aay bi da koy jàngale bu leer nañ wax ne wax ne wa rahbaniyatan ibtadahuha ma katabnaha alayhim nga xam ne soxla woon ñoom di créer loolu ndax yàlla moom la dogal ca ñoom dogal na ko ca ñoom ba noppi waaye ñoom nag ñoo am lu ñu fental seen bopp yàlla teg ci lan te lu ñu leen santoon ñoom weesu wut sàkku ngërëmal yàlla te loolu it wax la santuñ leen woon ñoom lu dul ñu sàkku ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla nag soo koy sàkku da koy sàkku ci lu yàlla gërëm mooy kon da koy sàkku ci lu yàlla waral ci yow yàlla li mu waral ci yow ci loolu ngay sàkkoo ngërëmam waaye doo dem nag di fent say mbir na da nga cay sàkkoo ngërëmal yàlla ki sooy sàkku sax ngërëmul nit xanaa donte sax du sa warugar waaye da koy sàkku ci lu mu gërëm kon kii sàkku ngërëmal yàlla day sàkku ngërëmal yàlla ci lu yàlla gërëm mu teg ci ne sax fama raawha xaqa riayatiha te loolu nga xam ne ñoo ko fental seen bopp sax ñoom seen bopp sàmm sàmmuñ ko dëggi-dëggi sàmmin ay yàlla lum ca teg leer na nañ fa atayna alladina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasixuun waaye ñi nga xam ne ca ñoom ña nga xam ne ñoo toppoon Isa ña nga xam ne ñoo gëmoon yàlla moom lu mën a xew ñoom jox na leen seeni yool waaye nag ba tey lu ëpp ci ñoom ay jalgatikat lañ noonu la ko yàlla jàng nga xam ne dañuy ñëw di pervertir mbir yi di ci dugal seeni yëfu bopp aaye bu ma aaye bi di aaye 27 bi li tàmbalee ci wa rahbaaniyatan ibtadahuha ma katabnaha alayhim wax boobu nit ki su jëloon taawam sëgg ci ab téeréem wala mu sëgg ci aaye bi di ko setantal lim ci mën a jëlee ci ay jàngat bari na ba ci kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy nekk di werante ci mbir mi ndax xoolal ni yàlla ni njàngaleem mi yombee ibtadahuha ma katabnaha alayhim ñoom ñoo ko fent waaye dogaluñ ko ci ñoom ndax dogal googu leer na ma koor yàlla da koo dogal ci ñun moo tax mu war ci ñun يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون باتاي لي ني واخ وصيه باتاي لولو لولو تخ مو ورتي نون كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين اك ييغا خامن موم لا ني جيف ييب لو يالا وارال تي نون لا موتاخ ني كوي ديف kon lu yàlla waralu ci ñun lu ne nit ñi suñ ko jëlee dugal ko ci mbir mi lu ñu fent la te yàlla moom li muy waral ci fenn la koy warale moo ngi koy warale cib téeréem te mu doon lu doy waar loo xam ne euh, aaya bi soo ko bàyyee xel wax dëgg yàlla yow mii dellu ci téere bi yàlla di ko bàyyi xel di ko seetantal dangay ngay gën a santaat yàlla ni ngay gëna santaate yàlla mooy dangay xam ne kon kem niñ koy waxee bu yàgg ba léegi nit ñi bari lu ñuy jëf loo xam ne dëgg-dëgg dinañ ci yegg suñ ko xamoon danañ ci dëñ ba set ci wicc mooy lépp loo xam ne borom bi diglewu ko dootuñ sa dox ndax kuréel gi fi nekk wala kuréel yi fi nekk te ñoom ñëpp nag ci kuréel yooyu loolu te mu nekk lu mat a xam ñoom ñëpp kuréel yi nga xam ne ñooy coow nga xam ne kenn niñ koy waxee kuréel yooyu benn bu ci ne ab xaaj la ci diine te yàlla dafa am loo xam ne da ko jàngale ci alquran wax dëgg yàlla aaya yooyu kii seetaan vidéo yi sax mën nga koo mokkal te it bëri nañu ko ci mokkal sax wax dëgg yàlla loo xam ne xam nañ ko ci ñi nga xam ne dinañuy faral di dégganteeg ñoom li yàlla di wax ne munibiina ilayhi wattaquhu wa aqimu salata wala takunu min al mushrikin min alladina farraqu diinahum wa kaanu chiyaan kulli xisbin bima ladayhim farixuun mooy yàlla li muy jàngaleel boppam ne ni xaaj seen diine ay bokkaalekat lañu ñi xaaj seen diine ay bokkaalekat lañu te da gis ne day am benn kuréel wala ay kuréel yoo xam ne ñoo ñëw taxaw di wax ne kuréel yi ñu jàkkaar lool nga xam ne ñoom ñëpp dañoo bokk ñoom dañoo bokk bokk ci benn xaaj boo xam ne mu ngi tudd ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna jamaa boobu nag ci biir moo am ay ramification tasawuf ci la bokk si biir tasawuf ay tariixa nekk ca ci biir ahlu sunna wal jamaa amaat yeneen ramification li ñuy wax salafia moom it ci loolu moom it ci biir loolu la nekk nga xam ne même su dul dara sax ñi nga xam ne ñoom ñoo doon ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk di wérante ci sujet yi su fekkoon na ñoom seen bopp dëgg ñor na leen suñ demoon ci seeni téere bopp nga xam ne ñoom ñoo ko bokkule mooy li ñuy tuddee seen kutubu sitta yooyu nga xam ne ñoom mooy seen référence xam nga dafay comme li may wax dañuy faral di wax alquran ak sunna waaye damay wax ne ñoom sunna soosu ñuy wax moom mooy seen delluwaay moo tax ñuy tuddee seen bopp ahlu sunna wal jamaa ñoom ci loolu lañ nekk nga xam ne seen juróom téere yooyu su fekkoon ne dañ caa woon ñoom ñi nga xam ne ñooy werante ci biir xaaj ba ñu bokk mii xaajub ahlu sunna wal jamaa ñoom seen bopp danañ mën a xam li ñuy werante moo xam mii gàmmu ndax loolu ñoom ci seen pas-pas la bokk wala bokkul ci seen pas-pas te loolu wax dëgg yàlla suñ dellu woon ci seen juróom benn téere yi nga xam ne mooy seen référence suñ ca dellu woon danañ xam ne loolu ñoom bokkul ci seen pas-pas waaye tamit comme li may wax jamono bu ne jamono bii maa ngi dégg ñoom ci seen biir ñii di wax ne euh, ñun dañoo am suñuy biddaa yéen ngeen am seeni biddaa bi ma ko dégloo it wax dëgg yàlla wax la joo xam ne day jur ci man maanaam maanaam li may wax ne lii dëgg-dëgg li tubaab di wax c'est triste ndax nit su fekkee ne da nekk ci loo xam ne yow mi koy wax xam nga ne sax lii bokkul yow ci sa pas-pas nit su ñëwee di la ko wax yow kay la waroon a doon sa yitte ma nga fexe ba dënca la waaye lañuy ñuy wax it ne ñun dañoo am suñuy biddaa yéen ngeen am seeni biddaa loolu it lu wér la ndax ñoo xam ñiy joxoñee di wax ne lii ngeen di jëf biddaa la wala ñu leen di wax dangeen di bokkaale ñoom it ñoom ña leen di joxoñ ñoom seen bopp ñu ngi ci bokkaale gi ñoo ngi ci biddaa yi te loolu li koy leeral mooy aaya bi parce que yàlla su waxee ne ibtadahuha ma katabnaha alayhim ñoom ñoo ko fent waaye dogaluñ ko ci ñoom kon lépp yàlla dogalut ci ñun rek kon loolu bidaa la lépp lu yàlla dogalut ci ñun loolu bidaa la te gis ngeen ni mu yombee ni ko yàlla jàngale ibtadahuha ma katabnaha alayhim ñoom ñoo ko fent waaye ko ci ñoom kon soo bëggee xam loo xam ne bidaa la fexeel ba xam yi yàlla dogal ci ñun soo xamee yi yàlla dogal ci ñun muy yi mu waral ci ñun yi mu waral ci ñun su ko génnee rek leneen la ca topp yëpp lu ñu fent la léegi nag da dégg ci seeni wax ñuy wax ne lii biddaa bu rafet la ma leen waaw léegi ku toll ni yàlla ndax damay wax ne xëy na ñun jafe-jafe boobu lañu am jafe-jafe bi ñu am mooy xam yàlla mooy kan ci ñun ak bind gim ñu bind lan moo tax mu bind ñu jamono bu ne damay wax na ñaar yi mooy suñu jafe-jafe yàlla mooy kan ci ñun ab laaj la boo xam ne nit ki su ko tontoo ci boppam xam yàlla mooy kan ci moom su ko tontoo ci boppam am na benn dayo bi dootu ko jox mbindeef muy dox ci kaw suuf lan moo tax mu binduñ loolu it nit ki su ko xasee xam mënatul dox ci benn ndigal bu dul ndigalul yàlla mënul nekk te ñaari laaj la yoo xam ne kenn ku ci ne waxuma lan moo tax mu bind ñu de soo soo waxee lan moo tax mu bind ñu nii rek ngay dañoo bind ngir ñu jaamu ko déedéet baat boobu du du jaamu de wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni wa maa xalaqtul jinna wal insa nit ak jinne kenn génn ci yàlla dañu bind ngir ñu liggéeyal ko moom mooy ngir ñu servir ko moom kon ça veut dire que bépp nit kum mën a doon kum mën a doon bépp mu mën a nit kum mën a doon bépp jinne jum mën a doon li ñu war ñun ñi moo ko war moom yenent bi ci boppam sax li ñu war ñun moo ko war moom teg ci nag boromam mission ba mu ko joxoon mu doon ay mbir yoo xam ne kenn ku ci ne ci nit ñi mbir yoo war a jàngat la seetantal ko xoolaatal ko sa bopp ndax yàlla su fekkee ne yow xam nga ne moom moo jàngaleel boppam lii ne liikat ñii ñoo ko fental seen bopp waaye waralu ko ci ñoom waaye dogalu ko ci ñoom kon yow mi nga xam ne da wax na gëm nga yàlla naka nga war a def danga war a dem xooli ana lu yàlla dogal ci yow lépp lu génn dogal googa nga sori ko ba mu jeex tàkk te loolu ay ata ngi nii yoo xam ne ci loolu lañ nekk bëri na ay jëf yoo xam ne nit ñaa ngi koy jëf ñii di taxaw ji wax nit ñi naan leen lii bidaa la lii bidaa la lii bidaa la limal nañ leen ci yu baree baree baree baree yoo xam ne dañuy ñëw ñëpp a koy def daanaka ci àdduna bi ñuy tuddoo islaam te vraiment dañ leen wax ne loolu yàlla diglewu ko te dañ leen di wax na leen loolu yàlla diglewu ko te dafa am beneen sew-sew bu ci nekk boo xam ne dafa mat a xam sew-sew bi mooy lan ndax damay wax ne wax nañ ko ci benn vidéo suñ ne nangam bidaa la yem ci foofa woyofal lu yàlla diisal la ndax comme li may wax sànq ku toll ni yàlla bind ñu moom ñu wàccee diineem di ko jaale ci ay nit dem ba yegg ci wax ni diine ji mat na bi waxee ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diinan xamal ñu ne inna diina hindallahi diina hindallahi islaamu xamal ñu ne diine fa moom mooy islaam bi yàlla waxee ne diine jimat na ba noppi ay nit ñëw ginnaaw gi te ci biir diine jooju ñi ci nekk mu xam le ne ay muslim lañ war a tudd ginnaaw bi diine ji mate yonent bi téere bi mate ci moom mu bàyyi koo fi dem ay nit ñëw ginnaaw gi di fent seeni mbiru bopp ci biir diine walla boog di fent seeni mbir di ko tuddee diine ndax dëgg-dëgg mbir mi loolu la ndax nekkul ci biir diine waaye dañ koy fent di ko tuddee diine mooy di ko moomale diine te loolu ñuy fent su fekkoon ne nit ñaa ngi xelaat ci jamono bii ñu toll ku toll ni yàlla suñu borom wàccee ay waxam jaayale ko ci téeréem téere boobu ci biir mu wax li ñuy wax alquran nga xam ne yàlla ci boppam moom moo xam la ne njub la ngir nit ñi ci li mu wax ne chahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaasi ci soo demee sootu baqara aya 185 nga demaat ba ci sootu isra mi surat 17 aya 9 mun ne inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam mun a al mun a alquran jii dee gindi di jëme ca la gën a jub ay nit ñëw di tuddo diine di wax na ñom njuba leen ñor te seeni wax du delu ci la nga xamne njub la ngit nit ñi la nga xamne day gindi di jëme ci la gëna jup waye lolu doyu leen te lolu yàlla wax ci lo xamne lu mata bàyyi xel la li mu wax ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddihan min khashyati allah وتلك الامثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون واي باتاي نيت ني خلاتوني يالا واخنا القران جي سنكو واتيه وون تي اب مونتاج مونتاج بوبو داغا غيس تي موم اك راغال لا رايته خاشعا داغا غيس تي موم اك راغال تييت دانا خار ولا دانا تاس ngir ragal yalla ama ragal yalla ci ragal yalla dana tax mu tass يالا مون مثال بوبا وتلك الامثال ندربها للناس مون مثال مومو تيرال نانكو نيب نيت ني لعلهم يتفكرون من من ام دانيو خلات واي داغي غيس با تاي خلاتو ندخ القران جوجو موغي في يالا لام تي واخ لير نانيا تتيوت دنجكو في رومبو dem di lijeenti yeneen loo xam ne nit wala yeneen i téere wax mu mel ni waxu yàlla da na a doyul ndax même nit ki su dee gis su dëgg nit ki su dee gis su dëgg na demal boppam xool lan la borom bi wax ba noppi balaa muy dem di jàll ci leneen ndax balaa ngaa dem di jàll leneen dafa fekk yow li li li nga war a njëkk a xool wala li nga war a xool mooy li la borom bi xooloo di ab téereem dafa war a fekk nga noppi ca waaye yow noppeegoo ci li borom bi wax borom diine ji moom la mu wax ngay dem di lijjanti ay nit yoo xam ne ginnaaw ba mu mate la ñu bay mën a bindu péere ngay dem di xool ñooña ñoom la ñuy wax kon alxuraan suñ borom wàccee gim ko wàccee ci ñun mel na ne ñun dese nañ koo yëg dese nañ koo xam te moo ne yàlla nee na su ko wàccee woon ci ab montagne montagne boobu day tas ci ragal yàlla ba noppi mu ne misaal moomu dañu ko tëralal ñun nit ñi mën nañu léegi mu ne mën na am danañu xalaat waaye ba tey xalaatuñ ji nga gis ne yii yépp ay xeetu jafe-jafe la yàlla mi wàccee diineem ne diine ji mat na ay nit ñëw ginnaaw gi fent seeni mbir ginnaaw loolu ay nit ñëw di wax ne waa loolu fent la waaye fent bu rafet la waaw maanaam fent ci diine yàlla maanaam fent jëmmi fent gi rek yow nangu gi nga nangu ne lii dañ koo fent ndax dafa ba mu ay baat yoo xam ne li tax ba gaa yi duñ koy wax ci wolof ci làkk bi nit ñi xam mooy bëgguñ baat yooyu leer ci nit ñi soo xamee ne yow diine ji diine ji la mat na am leneen loo xam ne dañ naan la lii dañ koo fent fent moy luñu ñu inventé ginnaaw bi diine ji maté mu am luñu ñu inventé waaye léegi loolu ñu inventé rafet naa ñaaw na loolu lu ci yoonu borom xel ndax yàlla lim wax ci alquran dafa leer ndax mom mom ab téréem borom xel yi gëm ci lako wacce ci ñom li wax na fattaqullaha يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا bàyyi leen الله yéen borom xel yi nga xam ne dangeen ngeen a gëm tax yàlla wàccee na mu jëm ci yéen ak fàttaliku ak fàttali kon ki nga xam ne borom xel la ñooy la yow yàlla wàccee na diineem diine ji mat na. ay nit ñëw ginnaaw gi ne lii kat luñ fent la mooy li ñuy wax biddaa la mooy luñ fent la waaye nag lii fent bu rafet la fent ci mbiru yàlla xanaa ñun ñii kum ci mën a doon ci ñun. ku ci amoon say mbir defar ko ba mel ni wel nit ñëw fent ca wet ga sax du la neex léegi rawatina loolu ñu koy def yàlla ay nit taxaw jàkkaarlook nit ñi di ko wutal layal ndax kon loolu du jafe-jafe léegi di tudd naan ay avion wak ay ay lunette ak ay nangam nangam ay émetteur dégg naa ci ay émission wak conférence ak nangam est loolu lu yàlla waral la est que loolu dafa concerne mbiru diine conférence fu ne lañ koy def di dañ koy def ci université yi di ko def fu ne loolu lu ko booleeg diine li nga xam ne suñ borom da ko waral ci ñun da koo décréter ci ñun ñu war koo dund mu bokk ci diineem ci loolu la ñuy wax bidaa te suñ ne bidaa it ña koy wax ba tey am na luñ sa gàddu bàyyiwuñ ko xel te it suñ ne bidaa rek dañ caa yem waaye dafa gën a xóot loolu dafa am sew-sew bu ci nekk sew-sew bi mooy mbir suñ ko fentee lu ñu fent la tudd loolu la ñuy suñ ko fentee lu ñu fent la tudd waaye nag suñ ko yoonalee shirk lay tudd mooy lan mbir suñ ko fentee lu ñu fent la mooy invention la mais nag suñ ko généraliser mel ni dafa bokk ci diine su boba nag shirk lay don bokay lay don motax ma don wax sank woyofal lu yàlla diisal la suñ ne bid'a rek yem ci sax woyofal lu yàlla diisal la ndax yàlla mo jàngale ne am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad din ma lam yazan bihi allah wala bok ñom dañu am ñi ñuy bokkaaleel ño xamne dañuy yoonal ci diine loo xam ne yàlla joxewu ci ndigal yàlla li mu wax ne ibtadahuha maa katabnaaha alayhim ñoom ñoo ko fent waaye waraluñ ko ci ñoom li yàlla waral ci ñun est-ce que da cee joxe ndigal yàlla li mu waralu ci ñun joxewu ci ndigal ak loolu ku ko mën a wax ak téere buñ ko mën a bind ak kuñ ko mën a askanale yàlla joxewu ci ndigal te loolu dafa xaraam bokkaale ak yàlla ci loo xam ne wàccewu ci preuve ku dem ci suratul araf yàlla mooy wax loolu qul innama xarama yonent bi la ko wax loo qul innama xarama rabbi alfawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق لمجتك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا نبوك جلوم أرامل بوك علي يالله تي لو خمنا واتي وتي بروف متكتي وأن تقبلوا على الله ما لا تعلمون وعليك يالله لوم ورالوت جانجلو نيوكو ديغلو نيوكو ورالوكو تي نيون بان بروف لا تي واتي su fekkee ne loolu sa dañ naan diw kii nit diw moo ko jàngale wala diw moo ko saxal wala diw moo ko wax diw mooma luy yoonam ci diine yàlla ak lu mu mën a doon diw mooma luy yoonam ci diine yàlla lu dul jëfe la yàlla teg ca kawam muy la yàlla waral ca moom kon ngeen gis ne mbir yi dafa nekk mbir mu sori lool te xóot lool te nit ñi duñ ko bàyyi xel te dañuy ñëw rek di wax naan lii bidaa la lii nangam la lii nangam la fekk ne yemut ca loola suñ ko fentee loolu bidaa la mooy fent nañ ko waaye nag suñ ko généraliser loolu shirk la su nekkee loo xam ne léegi nag nit ñi dañoo dem ba adopté ko jàpp ne ci diine la bokk ñu di ko jëfe loolu moom shirk la ndax dañuy dox ci loo xam ne maanaam ay nite ko yoonal waaye yàlla joxewu ci ndigal loolu shirk la bokkaale la te mbir mooma nekkul ne ñi ñuy joxoñ fii mooy ñu ñuy wax ñi nekk ci tarixa yi rek ñoom ñoo ci ne même ñi leen koy wax it ñu ngi ci biir loola ndax dafa am yu bees yuñ naan la yooyu ci nangami siècle ci la tàmbali waaye dafa amit yu njëkk yoo xam ne ginnaaw bi fi yonent bi tàmbalee ginnaaw bi fi yonent bi bàyyi ko lañ ko tàmbali ndax damay wax ne diine ji lépp lu waaye bëgg a xam ndax lu wér la ak lu wérul na dellu ci téereb yàlla xool li yàlla jàngale ak li mu jàngalewul yàlla li mu jàngale rek lu wér la lu mu jàngalewul wérul te lu mu jàngalewul diglewu ko te li mu jàngalewul warul ci kenn mu di ko def ndax su ko nit tàmbalee fent ko di ko def loolu ak fent la loolu lañuy wax bidaa waaye su demee nag ba ñëpp nag di ko def loolu shirk la loolu su boobaa bokkaale lay doon te loolu wan nañ ko ay yooni yooni yoon ci mbir yu baree baree bari ndax damay ci ma xam dañ ciy joxe ay misaal yoo xam ne dañ koy wax yoo xam ne ku dem ci vidéo yi di ko ci fekk ba ci jëf yi ñuy jëf jamono bu ne moo xam mi julli moo xam mi koor moo xam mi azaka moo xam mi acc lenn lu ci ne ci yooyu soo ca demee da nga ca fekk loo xam ne fent nañ ca yoonal ko mu doonu shirk ba ci julli gi ñuy julli sax ba ci koor ci misaal koor lañ ci njëkk a wax fii euh, maanaam euh, comme li ñuy wax euh, li nga xam ne moom la ñuy wax maanaam ci 2018 waxoon nañ ci koor ci vingt 24 nit ñi or maanaam nit ñi waxtu wi nga xam ne ci la ñuy ndogu defon nañ ci vidéo waxtu wi ñi ndogu moy ci wa ahlus sunna wal jamaa nga xamne ne ñiy ak ñañi joxoñ yépp ñom ñoo ci bokk and ndax ñoo bokk ci liñ nek da ngay fekk ñom ñu ne su jant bi sowé la lañuy la ndogu te yalla wax na suma atimmu siyaama ilal layli yalla ne maam nañu masal koor gi jëm guddii ñom ñu def ko suma atimmu siyaama ila ghurubi shamsi nga xam ne yàlla day wax lii ñu maam keneen ñëw wax leen ñoom ñu wan ginnaaw li yàlla wax topp li nit ñoo ñu wax dem ba jàppee ko diine te loolu bokkaay la yaa bokkaale waxu yàlla ak waxu ko wax kooka ba loolu ba ngeen dem ba saxal ko julli nii ngeen di jullee def nañ ci vidéo ku dem ci vidéo vidéo vingt sept vidéo vingt ah, vidéo vingt sept vingt huit vingt neuf ba vidéo quarante cinq ma ak vidéo quarante cinq ku ca dem danga nga fekk ñuy wax ci julli yi nga xam ne dañ ko cee dugal te bokku ca li ñuy wax azaka li ñuy def ay at ba at naan su matee nisaab ak nàngam nangam loolu def nañ ci sax ab vidéo tamit waaye ne li yàlla jàngale ak li ngeen di def dara boolewu ko ci biir aj am na yu ngeen ciy def loo xam ne yàlla jàngalewu ko lu mel ni ay sànni jamra xeet yooyu ngeen di def ah te yooyu yëpp yàlla amul fenn fu mu ko waral ci ñun te moo ne yéen koy def te jàpp ngeen ne loolu ci diine la bokk te yàlla mu li mu wax dafa leer de ibtadahuha ma katabnaha alayhim ñoom ñoo ko fent waaye waraluñ ko ci ñoom te yii nii yëpp ñu lim lenn lu ci ne am na ci loo xam ne yàlla waralu ko ci ñun te nit ñaa ngi koy def wala ñu am loo xam ne ñoo ngi ko cay defee noo xam ne bokkut ak ni ko yàlla jàngale te mu doon lu leer loo xam ne ay ayu leer naa ñi ñoo koy jàngale bokkut ak leneen sax loo xam ne it amaat na te loo xam ne ñaari kuréel yëpp muy kuréel yi coow ak yëpp ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi di tuddoo lislaam nga xam ne bonte comme li may wax lu ci bari ñu ci bari ay victime lañ ndax njàngalem ahlu sunna wal jamaa lañ leen indil présenté leen ko comme l'islam alors que liñ leen présenté njàngalem ak idéologie la loolu lañ indi woon fii ci réew mi loolu lañ yóbbu ci réew yu bare bare bari ci àdduna bi nit ñi loolu lañ jàppee islam alors que loolu ab idéologie la ndax li ci nekk loo xam ne yàlla bëggalu ko ci ñun loo xam ne yàlla waralu ko ci ñun kenn xamut num mu toll te jamono bu ne ñun dañuy faral di ko wane kon li yàlla wax ne ibtadahuha ma katabnaha alayhim loolu dafa nekk loo xam ne lu leer naññi la loo xam ne kenn ku ci ne mën na koo bàyyi xel kenn ku ci ne mën na koo xam kon dafa am loo xam ne dafa mat a xam dafa mat a bàyyi xel leneen li nga xam ne it moo ci topp mooy am na ci loo xam ne sax maanaam bokkut ak bidaa bokkut ak shirk bi loo xam ne sax mënees naa wax ne moom it lu garaaw a garaaw la te mu ngi fi te yàgg na fi euh, te nit ñi dañ ciy àtte woo sax te loo xam ne ay nit ñu ñuy tuddee ay boromi xam-xam loolu ci ñoom la bàyyi ko xanaa bokk na ci li ñuy wax mbiru ngir yi ñuy wax nga xam ne ay nit ñoo xam ne bi ñuy juddu fekk na lislaam mat bu yàgg ba yonent bi bàyyi fi ñu juddu bind ay téere indi ci seeni xalaat ak seeni gis-gis loolu ñu dem ba tasaaroo ñu dem ba tasaare ko ay nit tënku ca di ko tuddoo di ci àttewoo yoo xam ne dañ cee daganal ak araamal te muy loo xam ne yonent bi moom ca boppam sax pouvoir boobu amu ko ci diine muy daganal ak xaraamal loolu ku dem ci vidéo yu njëkk yi ko ca fekk lu mel ni ku dem ci suratu tahrim rek li yàlla di wax yonent bi yaa ayuha nabiu li ma tuharrimu maa ahalla allahu laka yàlla di wax ki mu xibaar ne ko lu tax ngay araamal tax ngay araamal ci sa bopp loo xam ne yàlla ci sa bopp loo xam ne dañ koo daganal ci yow mu doon loo xam ne lu leer nañ la yàlla jàngale ko muy li ñuy wax sos xam nga yàlla yii yëpp da koy tàqale bi waxee ci bidaa dana ibtadahuha ma katabnaha alayhim nga xam ne boobu mooy nattukaay bi ku bëgg a xam ci jëf yi ngay jëf lu ci bidaa te lu ci doon bidaa suñ ko généraliser shirk la dañuy ànd lu ci doon bidaa mooy lu ñu fent suñu généraliser woo nit ñi jàpp ne lu jàpp ne daa bokk ci mbir yi di ko jëf loolu su boobaa shirk la ndax dañ ko yoonal ba nit ñi jàpp ne ci mbir mi la bokk loolu shirk la su ñu fentee dañoo fent waaye suñu généraliser ñu ngi bokkaale am leneen li ñuy wax sos sos yi nag moom dafa yàgg ndax loolu wax dañ ko ay yoonu yoon lu bari di sos ay àtte ci diine nga dem ci yenn bara bi ñu ciy rey ay nit comme par exemple nga dégg ñu ne maanaam ku am soxna walla nga am boroom kër soo njaaloo dañ laa war a rey mooy li ñuy wax comme mu te mu boobu amul fenn fu ko yàlla foo xam ne yàlla da koo dogal yàlla da koo jàngale ne lii dañ lii dañ ko war a def amul ku dem ci vidéo 21 di nga ko fekk ñenn ñi soo demee ci yenn téere yi sax ñu naan aaya boobu ñëwoon na ci alquran waaye kii waaye li ñu ci wax mooy ab bëy ko lekk xeetu wax yooyu kan lañ koy wax mu koy jàpp wala mu koy gëm wala nga dégg ñu naan la ci misaal ku murtad dañ koy rey loolu ku dem ci vidéo 21 da nga ko fekk inna alladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zaadu kufran may leen ku murtad aaya boobu ni ñu ko cay def moom inna alladina amanu summa kafaru fekkoon su murtadee dañ koy rey ginnaaw bi mu gëmee kay su wéedee dañ koy rey waaye summa amanu summa kafaru ga ca topp kon lu mu fay def yii yëpp ak ay mbir yu bare bare bari yoo xam ne ñoo ngi koy jàngale ay ku bàyyi julli ñetti fan dañ koo war a rey ay di wax naan ku maam xomal loolu ngeen wax julli àjjuma ku ko deful ñetti ku ko deful ñetti àjjuma si sa amoo ngante génn nga ci diine yooyu fu mu jógee ay sos la te dañuy wax naan yonent bi moo ko wax amul aay bi ma wax léegi ci surat 46 muy suratu Axaaf aaya 9 li yàlla wax dafa leer قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم لمجتك إن أتبه إلا ما يوحى إلي يونت بي موم توب لودو لينكو وحيو سو ديمي تا لانكو وحيو دوفا فيك لولا دي يالا كو واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجري من دونه ملتحدا taril li ñu wax yu mu jëm ci yow te tukkee ci sa téeréb borom kon yonent bi lan la doon tari mu jëm ci nit ñi lu tukkee ci téeréb boromam suñ demee ci téeréb boromam is dañ fay fekk xeetu àtte yi duñ ko fa fekk te lu jiitu loola parce que boobu mu ngi nekk ci suratu Kahf muy surat 18 euh, mu ngi nekk ci surat 18 mais aya 26 baat yee ca mujj lu mu wax wala yushriku fii hukmihi ahada yàlla du bokkaale kenn ci àtteem te teewul àtte yi ñoo ngi ko dugal ci mbir yi souvent nga gis ñuy ñëw di ko moomale bi te yonent bi yoonam newut ci loolu ndax moom toppul woon lu dul boromam wax yu te su boobaa naka ngeen def man lam yaxkum bi anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasixun fa ulaika humul zalimun loolu yëpp ñëw na ci alquran te yàlla lan la wax ci sos nit ñi nga xam dañ koy sosal parce que so waxe comme loolu wax nañ ko ay yoon su ñëwé ne ci misal ali yonent bi mom moko jàngale li ni loolu ñëwul ci alcorane wa yonent bi ko ma wax may yonent bi loolu fu mu ko waxee yonent bi yàlla moko ko yónni ne ko topal li ñu wax yu mu li ma ko toppal li ñu wax yu mu jëm ci yow te tuké ci sa borom ittabi ma uhiya ilayka min rabbika laa ilaha illa huwa wa arid anil mushrikin moom ay yoon ci alquran mu wax ne moom in attabihu illa ma yuha ilayya moom topp lu dul li ñu wax yu mu jëm ci moom kon loolu ndax leerul waaye dangay gis ay nit ci bu yàgg loo xam ne bi ñu fi indil diine dañ ko caa boole waale joxaale ñu ko mooy li ñuy wax ay mbirum ngir benn bu ci ne boo ca dem mu am ay xeetu atteem yoo xam ne soo ci demee ci bari ñoom dañ cee wuute loolu yow nga dem gis lu mel noona nga ñëw ci alxuraan يالا دي واخني ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يالا دي واخني بول واخ مانام بولن واخ لي سين لامين دي ملال سي اي كاتش دي واخ لي دغان لي xaram na ngir sosal yàlla ay kàcc yàlla wax ne inna alladina yaftaruuna ala allahi alkadiba la yuflixuun gaa yi nga xam ne dañuy sos ci yàlla ay kàcc ñooñu duñu tonowu loolu mu doon lu leer yàlla jàngale ko yàlla xam le sax dëgg-dëgg ana ñan ñoo koy sosal ay kàcc parce que yàlla su fekkee dafa wax ne moom téereem mat na diineem bu fekkee wax na moom diineem mat na ginnaaw gi ay nit ñëw di wax naan lii di wax naan lii dagan lii xaraam na te la ñuy wax ne dagan ak xaraam na soo demee ci téere ba doo ko fekk te yàlla li mu xaraamal da ko wax ci alquran mu leer nañ ne moom faram fàcceel nañu li mu araamal ci ñun nga xam ne ku dem ci suratul nga xam ne ku dem suratul an'am aaya boobu ku dem ci vidéo yi da nga ko ca fekk ci biir kim ci da ko ca fekk lu bare bari ci benn aaya ci biir aaya bi muy wax ne waxad fassala lakum maa harrama alaykum faram-fàcceel nañu leen li ñu araamal ci yéen yàlla mu ne faram-fàcceel nañu li mu araamal ci ñun ay nit ñëw di ñu wax ne lii dafa xaraam lii dafa xaraam lii dafa xaraam te la ñuy wax dafa xaraam doo ko fekk ko yàlla xaraamale ndax lolu kon du jafe-jafe waye yàlla waxna ni deug deug ñi nga xamna ñokay ñoo sosal parce que su fekke dafa wax ne wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wacce nañ ci yow téré muy ab léral ngir bép mbir wa téré bo xamne dafa ñëw di léral bép mbir ci bir nga dem fekk ci mbir mo xamne ne yàlla leeralu ko ca maanaam ci li nga xamne mbiru diine la lo xamne nit ñi dañ koy tuddé diine ba nopi nit ñi bëgg la wax ne lolu diine la yow da ko gëm yow mi am xel te yàlla waxna deug deug ana ñan ñoy ñi nga xamne ñokay ñoo sosal ay kàcc wax inna ma yaftari al kadiba alladina la yu'minuna bi ayati ayatillah wa ulaika humul kadhibun deug deug ñi sosal yàlla ay kàcc moy ñi nga xamne ne gëmuñ aaya yàlla te ñoo ñoy ñooy kàcc-kat yi ndax ku gëm aya yàlla yàlla ne téré bi téré buñu faram fàcce la téré bu leer la bayé wu ci dara yi xamal yonent bi ne ko lolu moy deug yoo xam ne walladi awxaynaa ilayka min alkitaabi مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير لي نيو مو جيم سي ياو توكي سي تيري بي موي دغ كول لو ген تيري بي لوم دون تا سوس يوي دو جيخ اي فيت يي ني واخ ني كوم سو كور جي جيخه ني نا ليغي دا ني كوريتي فوكو يالا واخ امول فين فوكو يالا واخ فوم جوغي كين دولو فيك غا خامل لو كين دوكو فيك سي القران يالا بي واخ سي كور لوم واخ فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليم ndax dafa wax ne su paree da ngeen def lii li ñuy wax ay tabaski wax nañ ko fi fan la fan la nit ñi di fekk yàlla di wax ne comme at mu jot su ñëwee na ngeen def nangam loo xam ne benn jëf joo xam ne ci biir at la nekk moom la nit ñi génnee généraliser ko nit ñi nekk fu ne di ko def mu doon ab coono ci nit ñi ñi nga xam ne xamuñu ndax jàppee nañ ko diine te fekk na loolu lu ñu sos la ci diine yàlla la sosal. ndax soo waxee ñu naan loolu yenent mooy yenent mënul wax loolu te li may wax ne maanaam kenn du dem ci alquran di fekk yàlla di wax ku sosal sama ndaw yàlla ki ma sosal lay wax ndax yenent bi moom jottalikat la woon lan la yàlla wax fa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadaba bi ayatihi yàlla loolu lay wax ndax dama leen wax ne bàyyi leen xel aaya bale fa waylu lilladina yaktubuuna alkitaba bi aydihim summa yaquluuna hada min hindillah li yashtaru bihi thamanan xalila fa waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibuun bàyyi leen xel benn mbir yaa fa waylu lilladina yaktubuuna alkitaba bi aydihim summa yaquluuna hada min hindillah ñu na adet déet gaay bind yene téré yi comme lu mel hadith yi ñuy wax ñom ñoom ñooñu waxuñ ne lolu ci maam ci ci yàlla juggé jóge dañoo wax ne ci yonent bi la juggé may leen lolu kay ñaka xam motax ngeen wutalé ko min hindillah am min hindi rasulillah lolu kay yéen ñaka xam a tax ngeen koy wutalé ndax lan mo war ndawul yàlla wa ma ala rasul illa al balagh al mubin lan la yàlla wax yonent bi inna alayka illa al balagh in alayka illa al balaag yonent bi dara waru lu dul jottali dara warul ndaw li lu dul jottali bu leer léegi nag ab jottalikat nga dem ca lañ ko doon jottaliloo nga seet fa mbir gisoo ko fa nit jugee fee ñaar téeméeri at ginnaaw gi ginnaaw bi mu fi bàyyi ko nit juddu dem na day laajte ñu koy nettali muy dem di bind loolu ñu koy nettali mu koy bind dem ba pare ñu ne léegi ginnaaw téere bee nga xam ne wàccoon na téeméeri téere bee nga xam ne wàccoon na ñaar téeméeri at ci lu jiitu ginnaaw téere boobu téere bii moo ci gën a wér te téere bii du ci nekk lu wér la te it ci diina ji la bokk ay borom xel ñu loolu ay borom xel mën nañ koo nangu. di ci wax loo xam ne lu ci bari day ñëw di nga xam ne day ñëw di contradictoire day ñëw di contradictoire ak alquran kon yàlla su waxee ne su ma yaxuuna haza min hindillah yéen ngeen di wax su ma yaxuuna haza min hindi rasulillah te yàlla xam le ne ndaw li dara waru ko lu dul jottali ndax kon loolu du jafe kon li am solo moy ñu bayyi waat xel mbir yi ndax comme li may wax jamono bu ne rek jëmmi xaj ci bopam la yàlla tere ci diine jëmmi xaj yoyu nak moy jur jafe-jafe yi day wax ne diine yàlla téereb yàlla mo koy jàngale su lolu wéso xaj bo ca dem am nañ seeni téré bop yàlla nak mom diineem islam la tuddu ñu ci nekk ay muslim lañuy tuddu te ci benn téré la leen lo téré bobu la leen def lo wéru way te nénañ buñ bu ñu def beneen te nénañ buñ def lu dul wéru way ku dem ci suratu araf ñu wax vidéo danaka ay ku dem ci vidéo yi sax mën nga ko mokal li yàlla di wax na alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika xarajun minhu li tunzira bihi wa zikra lil muminin teg ci ne ittabihu ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabihu min dunihi awliya xalilan ma tazakkarun waaye lim jeexalee aaya bi rek ndax néew na lu ngeen i fàttaliku yàlla wax ma topp leen lu ñu wàccee ci yéen mu tukkee ci seen borom waaye bu leen topp lu dul loolu di ko def wéeruwaay waaye mu ne néew na lu ngeen i fàttaliku kon dëgg mbir yi looloo ko waral maanaam coow yi su amee li nga ciy njëkk a jàng mooy fàtte gi fàtte yàlla ndax fàtte yàlla mooy waral su ñuy wax ci loo xam ne dañuy wax ne mbiru diine la doo dégg kenn ku ciy lijjanti waa loolu sax moom yàlla moom lu mu ca wax dangay ngay gis ñu ñoo naan diw nee na ca lii diw nee na ca lii diw nee na ca lii te fekk lañ waroon a lijjanti mooy yàlla moom lum ca wax loolu lañ waroon a lijjanti waaye nit ñi comme lu mel ni suñ dëkk bi da gis ne lu ëpp ci nit ñi yàlla dafa dogal ne diine moom daanaka mbiru aada rek lañ ko jàppee ndax maa ngi dégg fan yi ay nit ñoo xam ne jàpp na nit ñi sax dañ leen tuddee ay nit ñu jàng <laughs> di wax day comme jàng woon nañ fii demoon nañ fii demoon nañ fii ñoo xam ne da ngay dégg ñuy wax naan nañ ñu bàyyeeg suñu nàngam sooy wax ne nañ ñu bàyyeeg suñu nàngam loolu nekkatul mbiru diine mbiru aada la nañ ñu bàyyeeg suñu nàngam mbiru aada la mbir yi émotion ci ci duggee nekkatul xam-xam su émotion duggee nekkatul xam-xam su passion duggee nekkatul xam-xam te yooyu yëpp dangay seetlu ne problème la ci fii Sénégal kenn ku ci ne yaa ngi am kuréel goo bokk di xëcc di jëmale sa kuréel xëccoo jëmale ci yàlla xëccoo jëmale ci téereb yàlla waaye yaa ngi xëcc di jëmale sa kuréel yaa ngi xëcc di jëmale ci ay nit yaa ngi xëcc di jëmale ci téere bu dul téereb yàlla nga gis ne fii moom ci réew mi moom yàlla moo fi gën a néew ñu ko fi nekkal yàlla moo fi gën a néew ñu ko fi nekkal te moo ne kat soo leen xoolee wala nga leen déglu da ngay jàpp ne fii moom ñi fi nekkal yàlla duñ jeex waaye ñi nga fi gis ñëpp ñuy tudd seeni kilifa yi nii nangam seeni intérêt képp moo yoon tax di réagir seeni intérêt képp moo yoon tax di réagir te te it suñu waxee rek day feeñ la ñu nekk wala privilège ya ñu am lañuy ñuy bañ a ñàkk. te loolu ñoom ñëpp ci bokk yem ñu ñuy tuddee tarixa yeeg ña leen di joxoñ ñëpp ci bokk yem ndax soo xoolee même méthode yi da nga ko fee gis ñee dañuy wax suñuy sëriñ ñii di wax suñuy cheikh dañ ko arabal nañ ko wax ci olof nga gis ne benn la surtout fan yi sax da nga ciy seetlu yoo xam ne maam maam jégg na dayoo di mel ni dañuy ñoom it ñoom ñi doon wax naan ñii dañoo jàppee seeni kilifa nàngam nga gis na ñoom it seeni kilifa gis-gis boobu lañ ci am mu doon mbir moo xam ne mbir mu doyo loolu amu ci diine yi yàlla lu ci am mooy nit ki moom ci boppam relation boo xam ne da koo séq diggante moom ak boromam di ko sàmm diggante moom ak boromam lépp lu muy def mu fexe ba teg ko ci loo xam ne boromam moo ko ko diggal wala mu nekk ko ci loo xam ne boromam moo ko defloo lépp lu bàyyi moom mu doon loo xam ne boromam moo ko ko bàyyiloo loolu nag nit ñi suñ ko xamee dinañ dund ci jàmm te dinañ am jàmm te dinañ mën a avancer waaye jafe-jafe yii yëpp li ko jur mooy wan ginnaaw yàlla wan ginnaaw téereb yàlla ba noppi nag di ko tuddoo di wut a seen bopp ndax li fi nekk nax seen bopp kepp la da gis sax léegi nit ñi parce que léegi loolu sax soo xoolee benn côté mën nga wax ne positif na mais teewul tamit ba tey di nga gis ne tamit ba tey day tàbbiwaat ci ak réer ndax li nga xam ne moo fi nekkoon ci aada muy affaire tarixa yi nga xam ne moo fi nekkoon léegi soo xoolee ñu baree baree baree bari ñu ngi ciy génn am na ci loo xam ne ñu nii am na luñ ci xam waaye da ngay gis ñu ci bari ñoo xam ne suñ ci génnee dañuy génn ci tarixa yi dem ci ñeneen ñi te xamuñ ne lañuy génn nag lañuy dem yépp xaaj kepp la diine organisation yooyu nga xam ne nit ñi moom la ñuy créer loolu amul ci diine organisation yoyu amul ci diine diine yow la sa diggante ak sa borom engagement personnel la li nga xamé nak mo aju sen mbiru aduna ni ngeen di doxale seenub koñ wala seenub dëkk wala seenub nàngam lolu yéen sen mbiru bop la waye jafe-jafe yépp fi muy nekk jël ay mbir yo xam dara boolewu ko diine bëgg koo defub diine ndax comme li ñuy wax bid'ani moy jëf yi nga xamné yoy ñuy fent suñ ko fentoon sax ne lii suñu mbiru bopp la jafe amu ci waaye fent gi koy fent bëgg ko moomale diine foofu la jafe bi nekk moo xam mi organisation yi moo xam mi xew yi lépp loolu mooy problème bi suñ ko defaloon seen bopp nga xam ne ñoom ñoo ko def seen mbiru bopp la jëmale wuñ ko ci diine dara du ca ne ndax loolu seen mbiru bopp la waaye suñ ko jëmalee ci diine rek nag mu doon jafe-jafe waaw te nag mat na bàyyi xel maanaam wuute gi nga xam ne moo fi ne dem ba bëgg a jur lu mel ni ay coow wala dem ba bëgg a jur lu mel ni ay conflit te li ko li ko waral li may wax mooy bañ dëgg kepp ñëpp bañ dëgg kepp ndax koo fi laal ay intérêt ñu dégg bañ dëgg kepp la yàlla taxut yonent bi taxut ndax suñ ne yàlla taxut yonent bi taxut lu yàlla taxut moom yonent bi mënul loolu yonent bi mënul tax ndax yonent bi moom li yàlla joxoñoon moo doon ab joxoñam li yàlla joxoñul woon yoonam newu ca woon ndax moom toppatoon lu dul li ko borom bi wax yu te moo ko waxal boppam ci téere bi du baree bari kon wax dëgg yàlla mbir yi ma kenn ku ci ne war na cee bàyyi xel ràññee li ñuy wax ak fent loo xam ne dañ koo fent ginnaaw bi diine ji tey ay mbir yu ñëw fent ko soo bëggee xam lu ñu fent ci diine demal xam li yàlla waral ci ñun ci diine lépp lu yàlla waral ci ñun ci diine lu ñu fent la suñ ko tasaaree mel ni dañ koo yoonal nit ñi jëm ci di ko def comme lu mel ni feet yi ñuy def di ko tuddee diineek yooyu yëpp loolu suñ ko tasaaree di ko def xam leen ne su boobaa dafay tàbb ci shirk su dee àtte yi nga xam ne nag moo fi nekk te àtte yooyu soo demee ci téere bi yàlla doo ko fekk loolu ay sos la yu ñuy sosal yàlla loolu ay sos la yu ñuy sosal yàlla te loolu yàlla jàngale na ci jàngale bu leer ci alxuraan ci barab yu wuute waaye barab bi nga xam ne moo gën a mat a bàyyi xel mooy bi nga xam ne moo nekk ci suratu anaam ay cent douze ku ci dem mën nga ko bàyyi xel li mu wax ne wa kadalika jaalna li kulli nabiin aduwan shayatin al insi wal jinni yuuxi baaduhum ila baadin zuhrufa alxawli gururan walaw shaa rabbuka ma faaluuhu fa darhum wa ma yaftaruun nga xam ne yi nga xam ne dañ koy sosal yàlla yi nga xam ne dañ koy sos dugal ko ci mbir yi yàlla nee na ay shayatinul ins wal jinn ñoo koy def ay nit ñoo xam ne ay shaytaan lañ te soo xoolee soo leen bàyyee xel ci li ñuy tuddee diine maam xeetu àtte yooyu ña koy sos ak nangam soo ñëwee ci nit ñi dañ leen jël ak leen ca kaw te soo demee ci alquran yàlla moom lii la ci wax ay shaytaan yi nit ak jinne lañ ñoom ñooy def loola. kon yii bant na bàyyi xel lii nag mooy li ëpp solo. nit ñi xam ne diine yàlla lenn la téereb yàlla moo koy jàngale te diine yàlla engagement personnel la ki ciy nekk yow la sa diggante ak sa borom yow li nga nekk suñ borom benn tur la la jox muy muslim joxu la turu sunni joxu la turu suufi joxu la turu xuraani joxu la beneen tur du suufi du sunni du xuraani du chiihi du ibaadi du lenn ci loola muslim point fa keneen ku ca am beneen tur loolu yow sa mbiru bopp la ñi nga xam ne ñoo fi nekk ne ñoom nit ñi dañuy bidaa dañuy shirk ba noppi tuddee seen bopp lu su wal jamaa la ma doon wax seen tur wa képp bidaa la may seen tur wa képp lu ñu fent la waaw waaye fan yii nag xam ma Sénégal dafa jéggi daye lu da dégg fan yi maa ngi dégg sax kenn di wax naan ay tasawuf sax soo xoolee tur wi mooy lu bees waaye waaye soo xoolee maa xeetu xam-xam bi yàgg na fi may leen fii bi fi yenent bi di nekk benn xam-xam moo fi nekkoon xam-xamub islaam xam-xamub leneen néew fi woon fekkee ci wàllu diine xam-xamub islaam képp ba fi nekkoon te xam-xamub islaam mu ngi ci téereb yàlla amul lenn loo xam ne nit jàpp ne ne lu wér la ci diine lu dul ne su demee ci alxuraan dana fekk yàlla jàngale ko te loolu su ko yàlla jàngale lépp ci islaam la bokk bokkul ci leneen niñ fentee tur yi la ñu fentee seen yëfu bopp tubaab bi nag dañuy wax ne la vérité existe on n'invente que le mensonge loolu mooy li fi ne dëgg moom am na ba noppi li ñuy inventé ay kàcc la jamono bii nag jamono yi dëgg la jamono yoo toll ci jamono boo xam ne depuis ci njëlbeen bi ñu commencé wax ñoo ngi koy wax jamono dëgg ci lañ toll lépp ay leer lu jamono di gën di dem nit ñi dañuy gën a leer nit ñi dañuy gën a yeewu incha allah di gën a dënc yi fi nekkoon ndax am na daje bi fi am fan yi am na solo lool ci ko xam taxna ñi fi nekkon traditionnellement xamna legi don bi changer na te day gën a changé li am solo nak moy nit ñi li am solo moy nañu détacher wu ci nit ñi te rattaché wu ci yàlla lool nak kenn duko defal kenn kenn ku ci ne yaa koy defal sa bop ndax kuy dundé say nelaw ku mëna a doon ku ne du bëgg nga yewu kon yow yewu gi sa intérêt la du intérêt ka nga xamne mom moy dundé say nelaw loolu nit ñi kenn ku ci ne da ko wara xam yewu ci jéem a dëgmal yàlla boromam yem ci fi ko yàlla yemloo yàlla fi mu la yemloo soo fay dund ci jàmm képp ngay nekk dara du la sonal bëri na lu daan fees sa bopp bëri na lu la daan xelaatloo dootul nekk ci yow kon li am solo lii la yàlla yàlla def taw feexu baax kon lu mën a xew ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp xaq te di leen baal xaq tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal macha allah jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum